dof kat mo la ko wax waye la la dof bobé wax nga jappé ko dof fay deppok téré yi né da fay netali mom mi toujours waxu ku dofoon wala bok ko xamni dafa mel na dof dafa nek nak ci tiwawon genn taxaw tiwawon bari mu ne ma waaw yow lu xew man ko man xaw ko mu ne waaw rajo yii ci dëkk bi fii te xamuloo ci man ko xaw ma ko mu ne ma man de jaaxle na moo bàyyi alaaji Maalik bi mu nekkee fii ci dëkk bi jàngalewul alxuraan ma ne ko ah kay ma ne ko jàngalewul yeneeni i xam-xam ma ne ko ah kay mu ne waa mag ñi fi bàyyi woon jàngalewul ma ne ko ah kay mu ni man ma defe ni jëfa fi des waaye wax desatu fi wax passé na jëf rek moo ci des waaw <laughs> kon ne léeg-léeg nag nga digg wax ci koo xam ni dafa sol ay sagar fekk nag lam la wax fa ko jële moog yàlla rek moo ko xam sol sagar nag bu la génnee ci nit ñi it génnewu la ca yàlla ñii fi toog jóge ndar te juddoo ndar nag màgge ndar yàgg fa nag am na luñ fa xam ne xam ngeen ko ku ñuy wax bàcc jaxate ah kay Baye Umar xam nañ ko ñépp xam nañ ko ca ndar bàcc jaxate waaw moom lan la daan liggéey sànnante ay xeer ak xale yi ci mbedd mi ba nga xam ne nag ma ngay feeñ nit moo ko gis xaaju guddi nag mu nekk ca ceem walla càkkanjaay foofu mooy armeel ya maanaam tok kooka nak dal di koy gis di jaabante nak ci boru dekh gi bàcc fi tasu ko ni ko ni kay man kat limay indi fi lo yag yag dox fi bu may jóg fi do ma kon kay togal xam nga ma mon ko dedet mon ko ah kay man mi may bacc jaxate mon ko bacc jaxate man mu ni ko bàcc jaxate bi nga xam rek su bëccëgee nag yàlla nee na naa sànnente xeer kenn bañ maa xam su guddee ma fanaan si ca yàlla ni ko nag man nag foofu la ma yàlla dencoon boo ko nettalee rek ma génn àdduna waaye nag kaay bu may génn àdduna nag dama lay yóbbuwaale de ñooy ànd mhm. Mhm. góor ga nag ba mu ko waxee loolu mu daal di dem dem moom góor ga ba mu yàgg mu ni man daal nitu yàlla daal ma ragal dee ba di ko nëbbal ni moom mi nitu yàlla la ndax su ma ko waxee de su ma ko waxulee dee kon naa ko wax rek allahu di koy wax nag ba mu ko waxee bàcc ñëw daal di koy nuyu ni koy yow kat wax ji kat siiw na dégg naa koy nanga na waaj man nag altine lay dem waaye yow nag du ma la jiitu de talaata nga topp si ma wallahi ngóor ga ko ndop mhm. loolu ne li taxit mu wax loolu